honorable Versard, je vais l'article L57 honorable carte électeur pourquoi ça c'est d'abord la première chose man nga bindu ci liste pour une raison ou une autre amoko wala man nga bañ bindu doko am waye ku bindu ku ne am donc ku la ne yor na carte électorale mi ngi ci liste yi yaakaar amul problème hein Karim bindoogul dafa demander ndey day bindu waaw li nga waxit li ma wax li ma wax leer na de dama ne ku ku bindu ci carte yi yor sa carte électeur ki la mën a firndeel la tey bindu na mooy ki gis boppam ci liste yi wala ki yor carte électeur